auzu billaahi mina si rajiim bismillaahi rahmaani rahiim uh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa uh, man maa ngi tudd docteur Ahmadou Bamba Diop uh, di médecin généralist fii si Touba maa ngi liggéeye si benn structure bu nekk fii si Touba nekk it membre Touba assistance médical Touba assistance médical nag soo ñu ko déggee mooy kuréel bi nga xamante ne dafa lëkkale ay médecins ay pharmaciens ay dentistes ak ñeneen ñoo xam ne defuñu santé mais wàllu santé moom moo ci ëpp doole. Euh, Touba Sans Médicats nag li ko tax a jóg mooy taxaw yoon bi si wàllu santé waaw euh, ñu ngi ko sosoon en 2001 si jamonoy Serigne Saliou euh, à ce jour fi ne nii mu ngi ci 600 membres Touba Sans Médicats nag ñu ràññeeku lañ ci wàllum santé. surtout si événement yi nga xamante ne mooy am ci yoonu murit rawatina màggal gi Serigne Touba bi yeneen événement yi fi am léegi nag euh, liggéey bi buñ ko waxee euh, jumaa ji du nekk en reste daal dafa nekk benn barab boo xamante ne daf ñoo soxal lool ndax ku ne xam na ni mbooloo def fiy daje Touba Change Médical nag def organisation bu am solo lool indi fi ay docteurs yoo xamante ne dañuy def par garde ay équipe la am na équipe bi fi nekk suba de huit heures à dix sept heures dix sept heures ak huit heures du matin am na beneen équipe bi ñëw euh, fi mu ne nii équipe bi fi nekk docteur Niang mi moo fi nekk suba ba tey docteur ma Niang docteur Maguette jonn mi nga xamante ne mooy euh, médecin chef bu centre de santé bu Nindi sa Diourbel moom moo fi war a fanaan euh, bu ñu nee jumaa yi it dañuy bàyyi war ma jumaa ji war ma yi dañ koy bàyyi xel daal moo tax euh, boo bu ngeen seetloo dafa am ñaari box dafa am box boo xamante ne jigéen ñi lañ fay xool médecin bu jigéen lañ fay bàyyi bàyyi waale xel war ma jumaa ji beneen box bi euh, góor ñi lañ fay xool fii nag innovation ren dañoo def dafa am ay yokkute yu am solo ndax bâche bi daa fi am ren lañ ko fi indi pour gérer urgence yi ndax bu ngeen seetloo maladie mën nañ ñëwandoo sonnandoo dañoo def fii jigéen ñooy nekkee nii góor ñooy nekkee nii ku fi ñëw sonn ñu gaaw la wallu loolu nag espace bi ak organisation bi moom moo ñu ko may ren dafa nekk benn innovation bu am solo bu am ci ci liggéey bi daal waaw. leneen tamit mooy garab yi tamit macha allah am na fi ba doy garab moo xam médicament d'urgence la wala médicament boo xamante ne buñ la fajee ba pare. dañ la koy bindal may la ko nga dem nga dem nga dem nga dem nga dem nga dem nga dem sa kër daal waaw. Euh, leneen tey mooy Touba Assistance médical yàlla dimbali na leen ba membre yi mën nañ assurer waxuma la fii rek waaye bawaa na barabu barabu barabu fajukaay boo gis si dëkk bi jamono ji membre Touba Assistance médical mu ngi fa ñoom waxuma la sax màggal gi mais membre Touba Assistance ñoom ñoo ëpp ci barabu fajukaay fii même bu màggal su màggal jotee ña nekk Dakar ñëw renforcer ñu. Touba assistance médicale si dimbalu sëñ bi am nañ loolu fi mu waaw si loolu loolu daare bi noonu lay liggéey léegi nag Moukhaddamatoul Khidma nag suñu liggéey ak ñoom lu yàgg la ñoom yàgg na nekk ak suñuy kóllëre lu yàgg leen ànd ak ñoom liggéey bi ñoom lu mel nii lu wees loolu sax mooy ajuma ju jot dina am équipe médicale bu ñëw équipe médicale bi day jógee ci district bi maanaam centre de santé yi nekk dëkk bi ñooy envoyé équipe mais équipe yi ñu fi envoyé yëpp ay membres Touba assistance médical lañ maanaam Touba Vision yàlla dimbali na leen ba léegi seen i membre dañoo man daanaka ndar képp wàllum santé fii nii ci dëkk bu dëkk bu sell bi daal waaw muy loolu dañ ci sant suñu borom bu baax di ci sant Serigne Touba ndax ñun moom ay taalibe lañ liggéeyal Serigne Touba la ñuy def si wàllu yu ñu féete muy wàllum muy wàllum santé daal.